وتسليم على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

waaye oustaz tey naka la ñu war a tànn. yàlla mi fal. moo xam ko muy fal. allahumma maalikal mulki. tuutil mulka man tasha. wa tanziul mulka man tasha. wa tuizu man tasha. wa tudlu man tasha. bi yeddikal xayr. innaka ala kulli cheyin qadir. koo koy fal. koo koo xam. ku muy définir. yàlla moo xam. gis nga ñi nga tudd ah mais Macky Sall ñun fooguñu ko woon. Macky Sall at mi muy jël bi muy jël. foogu ñoon ne moo ko jël Abdoulaye réew mi foogu ñoon ne moo la mbir yi demee kenn ku ne da wuur rek waaye bàyyi la yàlla yàlla mooy mooy mooy mooy mooy tànn yàlla seet ko ko neex ma def ko buur buur nag moom du du mu ne ni mel de ki neex yàlla rek ki neex yàlla rek kay buur mm-hmm. waaw waaye nag li bon yàlla def la buur ngay bummi nag doxul nag bu la defee buur nattu na la ba xam danga liggéey wala doo liggéey sooy liggéey baax na waaye soo ko defee nguur di bummi di def li di tëj nit ñeek def lee du sotti <coughs> nga nekk def li mu bëgg mu di la nattu soo ko defee ni mu ko bëggee yàlla dana la ko fay soo ko defee ni mu ko bëggee su ma la tus àndoona yow masi an na bu ëllëgee mu laaj leen yow nguur gi ma la joxoon noo ko def te kat kii laaj a gën a xam ki muy laaj li gara li garaaw mooy loolu kii kii laaj moo gën a xam ki muy laaj su ma la tus àllu na yow ma iti naa ni naayen dana la laaj nguur gi li nga ci doxal yépp alxuraan la de li nga ci doxal lépp dana la ko laaj li ci jub ak li ci jubul waaw li ci sell ak li ci sellul li ci jaar yoon ak li ci jaaru yoon ni nga ko doxalee lépp dana la ko laaj lu ci jubul mu àtte la ko ndax yaa <coughs> na xëccoo quand bu fekkee ñoom ñëpp defar moo leen tax a jub jar na xëccoo jar na xeex quand jarul xeex na waaye jar na xëccoo parce que dañoo xamul kan la waaw xamuñu kan la suñu xamoon ne xalifa Sall lay doon président. kon ku ne da ngay dem toog rek Khalifa Sall toog doon président suñu xamoon ne Sonko doon président dañuy dem toog rek doon président suñu xamoon ne maître El Hadji Diouf doon président dañuy dem toog rek mu doon président ah ku nekk rek ku nekk rek waaw ku nekk ak ka ka ka ka nga foog waaye yàlla moo ne su ngeen ne boo ngeen xëccoo ñàkk a xam kii doon président moo waral ngeen di xëccoo xëccoo leen waaw man nag danaa fal ki may fal dañuy xëy rek gis muy diw boo gisee muy diw na foofu la question bi ne waaw réew ku koy xëccoo ba yàlla jox ko kenn xanaa kon sañ ngaa jël sa bopp nag boole ko ci dimbali ko nag mm-hmm. kenn ku ne sañ ngaa xam nga li gën a bon mooy ñun ka ndaw si ndaw si la ñuy jamaale kenn jam leen mm-hmm. ñu ne nag waaw ndaw si kon dana dee wala nangam nangam déet ki leen eh, gannaaw da ngeen di jamaale mm-hmm. ndaw si jam na leen jël leen li ngeen doon jamaale jox ko ko dimbali ko ko réew mi képp ko yangi yangi yangi yaangi ci xëccoo ba yalla jël réew mi jox ko kenn war sa doole xëccu nga def ko ci réew mi jox ko kooku dimbalé ko parce que lool moy liggéey waaw loolu moy liggéey waaye nak ah li ci dess kenn xamul lan kenn xamul lan man dana dana reyante nangam nangam ah, réew mi waruñ ko jox diw di ko ko yor ah du non nak yalla ko yor waaw soo ko da ngay son yalla ko joxé Euh, diw lañ koy jox déet da ngay bàyyi mbiru yàlla su yàlla noonu nag yéen a koy doxe yéen a koy joxe amul problème waaye yàlla waxul loolu daf ne maa koy jox ku ma neex su jeexalee maa du jeexalal boppam de man maa koy jëlaat ci ku ma neex joxaat ko ku ma neex may teral ku ma neex may teddil ku ma neex man euh, bëgg bàmb mi man na maa laal wala ma laal ko ni nii barke ah waaye léeg-léeg mooy gis koo xam ne bu ma laalee ma raxasu. dëgg mooy wattu si man tase. bu la laalee nga raxasu. lépp lépp yàllaa ko def soo xamee nag ni kii yàllaa ko teral ba nit ñi di raay yére di barkeeloo. kii yàllaa ko teral ba yéreem kenn du ko jege. ku mu laal nga raxasu nga xam ne ñaari yàlla la. waaw yàlla jox def ñaari te ñaar yooyu liggéey yàlla liggéey yàlla nag dañ koy nangu dañ koy nangu. waaw xam nga Sonko question bi Sonko du dem mm-hmm. que gisee nga déedéet xam nga loolu ke ba tey xam nga Macky Sall dama leen di wax ne am na fu mu yey mm-hmm. parce que waxoon na ne mm-hmm. troisième mandat du ko jël. du loolu waxoon. waaye wax leen yéen itam. du loolu la waxoon troisième mandat du ko dem. ñu dem coow li bari mu ne patt ne patt rek. Mhm. la waxoon moom mu nga ne patt rek. Mhm. ba mu jege si mu wax leen li ma waxoon la waxoon rek la waxaat jëlu ko. waaye itam mbiru Sonko noonu lay demee nañ ko bàyyi rek sonk bu waree doon président kenn kenn yi junni yi Macky Sall mhm. mënuñ ko gàllankoor. téeméeri junni Macky Sall mën nañu ko gàll adduna bi yëpp buñ togoon ne Sonko du dem dañuy xëy rek gis Sonko mu dem su adduna bi yëpp àndoon ak Sonko ne mu Sonko yu toog yàlla yàlla tànn keneen yàlla kam tànn nañu fem yaa ma'shara jinni wal insi in istata'tum an sama min aqtaari samaawaati wal ardi fanfudhu laa tanfudhuuna illaa bi sultaan alxuraan la yàlla ne ne bu adduna bi yëpp daje woon bëgg laa jox leen te liñ la bëgg a jox man yàlla ànduma ci doo jot su àdduna bi yëpp daje woon pour bëgg laa xañ lenn te man yàlla ma bëgg la ko man ma man ma bëgg la koo jox du xañu kon donc mbir mi yàllaa ko yore Macky Sall yorul loolu ma Demba yorul loolu ma Paatu yorul loolu yàllaa yoru affaire nguur ñi nga yàlla mi ko faloon yàlla mi faloon Macky Sall may fal nga xam buñ ko buñ ko dugal ci loolu naan ay danaan danaan Sonko moom moo leen ko wax est-ce que moo waxagum ne Sonko du dem produire lan. procédure yi ko dem lu tax lu dem. condamnation yi moom. condamnation yi ko wax. Ah, loolu ngeen wax mais yàlla lu wax. <laughs> ah <laughs> mooy li nga li nga wax ni loolu la yàlla la wax yàlla yàlla lim bëgg mooy am. ki nga man man àdduna du ma ci tiit. pexe yi nit du ma tiital. waxi nit du ma tiital. jëfi nit du ma tiital. yàlla rek ma mën a tiital rek. su may ut dara yàlla xamal ma ne doo ci am duma ci sonn su may ut dara yàlla waxuma ci dara man danaa ko wut ba sës waaw mais jarul tiit yàlla daal li mu wax rek mooy am eh, négal ba ngeen yegg <laughs> eh, ngeen ci yegg ngeen di waaru ci yàlla yàlla ka muy tànn dana leen jaaxal sax yàlla du noonu yàlla du ay benn waay bu ne fële naan wuy ñii lay àndal ndax ñoom ndax ñoo ëpp mbooloo yàlla mooy tànn ko neex ca waxtu wa ko neex te ba koy tànn coow du jib dara du jib waaw Macky Sall mënul mooy loolu lu dara pour moom mu kale euh, Sonko ci pexe boppam ba mu kale léegi bu affaire jógee ba mu jógee fi ba dem yoonam léegi lan la koy bu ko xalaatee lu mu koy jëriñ du ko jëriñ dara du ko dara dara dara kon na def lu rafet rek na def ni mu rafetee rek na ko def waaw kiy doon président wu Sénégal benn Sénégalais ñemewu la wax ne la diw la lu dul yàlla yàlla nag moom ko bu ne la diw la diw la bu ne du diw du diw yàlla rek a mën a wax waaw waaye waaye nit ñi nit ñi nit ñi dañuy wax rek ah waaw léegi ma laaj leen benn affaire jamono yi Ablaye Wade bi ñuy def élection bu ngeen foogoon ni mooy doon président waaw Niass Idrissa Tanor mhm. yéen xam nga ñooñu ngeen xalaatoon xalaatuñ sax état eh, eh, Macky moom kenn xalaatu ko ku génn nekk président ñee fu mujj ñee gaañu nañu. ñu ànd nañoo moom liggéey. waaw ñu ànd nañoo moom liggéey ba seey ca biiram booba ku leen ko déyoon ñu saaga la ku leen ko déyoon ne leen mujj bi ñu saaga la waaye gis nga ko mujj nañu nekk ci wetam. ak moo mel noonu nañ bàyyi yàlla rek di def yëfu nit moo ñu gën a waaw macha allah ci candidat yi ba léegi euh, borom passage bu wóor Mouhamed Ben ci la bokk candidat la à la candidature oustaz bu nu bu nu bu nu jógee ci la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 ou 77 677 77 08